Ah. laan bikum ñetti ndaw Sénégal fañ leen a tiire balu fetal ñu faatu ñàkk seen bakkan ci ñaxtu yi Allah turbine yéen a ñu ko xamal libération na ko fa ngaa war a leeral ne li tax ñu fetal leen rey leen ñetti ndaw ñooñu du dara lu may wote yi nga xam ne njiitéram Macky Sall fa koo toxal askanu génn di ñaxtu ci lañ reyee ñetti xale yooyu turbine yéen a kaay na ko xam nga kan a kan la Alpha Yoro Tunkara étudiant université bu Ndar moo Gueye Colobane Lamine Diédhiou ca Ziguinchor Modou Gueye mu magam ja nee na mooy porte plainte libération na bakkan yi rot ñu ngay gën di bëri ci ñaxtu toxal wate yi yaaw seetal Modou Gueye fañ koo tiire balu fetal kolobaan ñu yóbbu ko hôpital mu mujj faatu mag ja nee na man moom rek laa dese woon Landing Camara ñu gën koo xam ci Landing Jeeju ñaar fukki at ak ñett la am Ziguinchor lañ ko faatee ba tax waa SAES mbootaay jàngalekat yooyu fa ñuy amal geraw ndax étudiant boobu ñu rey maître Sidiki Kaba moom jëwrin fa setal wecci takk deri ci faat yooyu ñu faat ndaw ñi Cheikh Niass njiitu réew mi fa koo dalal ca palais ba mook délégation ko ne Pierre Goudiaby moo dox ay tànk ba njiit réew Macky toog ak Cheikh Niass ba pare nag wal fajiri télé bañ ba ah ngay tàkk ñu a ne xée fi mu toll fa mel ñu wax ne xam nga lu mu bëgg fi mu nii mooy génnee Ousmane Sonko kaso ak ñoom Jomaay Fay ñu ne déetewaay mbooleem kuñ jàppoon tëj kaso weeru mars ñu fi doon ñaxtu juin ba ñu ñu jàpp bërki dem moo njaay ñoom ñëpp la njiit réew Macky bëgg a baxal ñu génn kaso lépp ngir réew mi dal le quotidien yéen a kaay na ko faay dëggal li nga wax njiit fa bëgg a def amnistie Ousmane Sonko te su boobaa fay mën a bokk ci wote yi di ñëw projet de loi bi nga xam ne la nar a ñoo wax lu leer nee na ñoom demuñ dialogue fekk fetal fañ ko teg seen bopp yi te fi mu toll taluñ waxu dialogue li ñu tal mooy wote yi ñu amal ko woon 5 bii te ñoom fa ñu continuer seen campagne bi Serigne Mboup bokk ci candidat yi mel ni ku naan leen si bo ngeen bañ a bokk ci dialogue de ndax dialogue njiitiram Macky Sall bii du dara lu mooy ay naxaate piège ndëgg sërëx ma ngi ko waxee ca l'observateur ba tey l'observateur na dialogue boobu sax paaka ñaari boor la ah, bokk ci dialogue boobu mooy ne mën naa tas partem ba waaye tamit su demee bokk ca dialogue ba baxal ko ba tax mu bokk ci wote yi léegi nag Sonko fay bokk ak Macky fa koy baxal ak mu génn nag ñañ tëj ca kaso yi fañ leen di ñu génn ak loolu yëpp li ci kanam rawul ay gët nañ yónni yàgg rek ka ñu yónni Sénégal nag ngir mu wax ak njiitëram Macky Sall mu deltu ginnaaw ci dogal bi mu jël fexe ñu amal wote yi du kenn ku moy njiital CEDEAO nekkit président bu tey ci altine ji lay ñëw Ndakaar waxtaan ak Macky info yéen a ñu ko xamal yéen a kaay bi ne njiit réew mi koy fi mu toll nii fa mel ni ku jaaxle ndax toxal gi mu toxal wote yi presque ñu baree bare ànduñ ci te gaañaa ngi dal ci kawam moo xam américain yi waxaat nañ ne nañ Macky na organiser wote yi 25 ay ay syndicat ci réew mi ñu ngi joxe ay geraw F24 ñoom fa ñoo woote doxu ñaxtu ni suba ci talaata ji ngir ñu bañ a randal wote yi ñu ne déete waayati juróomi kàngam yoo xam ne seen xam-xam fa màcc ci wàllu yoon sénégalais yépp respecté leen ñoom wax nañ lu leer nee nañ d'accorduñ ci loi bi nga xam ne moom lañ wote ci assemblée nationale juróom ñooñu xam nga kan a kan la professeur Serigne Diop Abdel Kader Boy Babacar Gueye bu njëkk ginnaaw bu mu toxalee wate yi di dànkaafu woy politique yi fa leen a wax attention def leen dànk su fekkee mënuñoo juboo ci suñu biir am na yeneen force yoo xam ne mën nañoo jël nguur gi ci suñu loxo te su boobaa ñun politiciens yëpp fa ñuy ñàkk Mimi Touré fa koo tontu na ko yow njiit réew mi laay waxal kàddu yooyu nga yëkkati su fekkee fa ngay bay bayal armée bi maanaam takk der boo xam ne fay jël réew mi faa bëgg nga noppal sa bopp gi nga Sénégal gii benn takk der du fi jël réew mi fa ñuy xamal a jël réew mi a muy Serigne Mouhamadou Lamine Laay xam nga lu mu waxam fa wax mboolem kuy taalibe laayeen bu ñu wootee marche yi ngir wote yu ñu toxal suñ ko xootee bu kenn bokk ci ñaxtu yooyu le a kaay ñu ko xamal ci lay se ko ma ngay waar wooy politiciens yi sàkk waxtaan ca seen biir ndax fa wax na nguur faa yaakaar na kenn warut koo jël ci jaar ci ay niiw waaye tamit kenn warta génn ci nguur ci jaar ci kaw ay niiw le réveil a kaay ne faa leen di wax njiitëre Macky Sall nim tilimalee salteel image am naka noonu Karim Wade du dara lu may ay pexe ci wàllu politique moo leen yóbbee li yëpp Mimi Touré moom it fa duggati njiitëre Macky Sall a def yenn yi <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Pape Demba bi tey ma ngay taxal Saalum ci ay courant yoo xam ne ma ngi ko yóbbu ca dëkk àll ya bëkki démboo Njaay daabaali la dem askan woon nag fa ñoo kontaan ci moom antenne yéen kaay ñu ko xamal tàggat yaram réewum Côte d'Ivoire waar nañu bëri ndax mujj nañoo jël Coupe d'Afrique ba lu ñu bëri xalaatutoon ndax mbuq yu métti yi nga xam ne mbuq nañ leen ko ci biir tournoi bi ñoo xam ne fa ñoo demoon na toog ba Côte d'Ivoire fa mbuqi réewum Nigéria ñaari stade yéen kaay ni man kay faawaaru Côte d'Ivoire jël na ko bënni rek Le Soleil yéen a kaay na leen waaw waaw fi mu ni ñayi Côte yi ñooy buuru Afrique